waa ndeysaan bu lam dotaay singa la sol la solon suuri bi waaw dina ree gaa yaa ngi wàcc de suudoo moom kii moo la lamin moo la meeb sànni la gaa yi fas nañ seen kanam de yee lam dotaay singa waa suudu suudu ci loo ne laa ilaaha illallaah suudu suunu lu wala suuri. ëmmaa ngi ta yàgg maar Taala Njaay ëmmaa ngi lamin kol bi kaala bi kaala bi waaw bii mu takk ci dënn bi bu la ko joxoon noo koy ah, bii ma def ko fi mu ko def rek lu ko jëriñ jëriñ ma ko xanaa ah, mi ngoog mbër ñu ngi lay bëggee waaw ñu dal bëggee ci loolu ne bi tey ay lay la la yàgg xalifa ngi wax ak moom kutee xanaa lii mooy doo ci jot ah nee na bala yéen nit a jot ah ma may rek Lamine kii ne woon ku ma dóor yet ba abal ma ma fayu fayoo gun na ci ñeenti mbër de Babacar kan ak kan la fayu na ci Gris Bordeaux de fayu na ci Mbaye Diouf waaye itam fayu na ci kii nga xam ne ni mooy Lac de Guiers 2. dóor dóoraat Balla Gaye. loolu def na ko ñaari yoon. mooy borom revanche kon. la man ñeenti revanche ngi noonu. yaa ma ko kon ak a jara mooy toog revanche. xaw ma lu ko. waa revanche doy na waar jar naa lijjanti je. daa mel ni lañ nga yor oto bi noonu. revanche rek la man macha allah. borom revanche ci loo ne ndam tuuti rek. ma ne ko revanche de yaa ko dàq bëri ci réew mi koo revanche daan nga ko. yàlla baax na incha yàlla ñu yàlla may ndam rek. a bi lu tax nga war ko te indaale ko ni waaw yàlla baax na ay mbir la rek. dara affaire la am couronne bi la ñu a xam. dara dara dara waaw Lamine gis na jàkkaarloo ngeen démb ci roq waaw dégg naa am na fu ngeen wét. dina baax incha allah. waaw ñu xaar xam naa pour lu ñu war a wax yëpp dañ ko wax ci biir incha naka Pikine waaw sant yàlla di sant bu baax nag waa Mbao ak waa Pikine waaw mais après lépp nañ ko wax ci biir rek ko yéen gars yi daa baare koñam waaw mais yàlla baax na man dem na Mbao fan yii duñ téye jën mais gars dañ ma téye dugg si foofu sax dégg ah, ah benn ah, affaire <laughs> waaw mais dina baax mais ci kaw tur rek dinañ waxtaan incha allah <laughs> waaw benn problème ana lañ jàng lañ jàng ngi nii de lañ jàng nañ la mu ngoo nguy dawal oto bi yaa ngi si jàmm waaw ñu ngi teel naa teew waa président moom teel a suudu suma gars yi ñoom mag sax ñëpp saa bogal xam nga. mais ëmb jàmm ji man man reetaan ba tey waxaguma ci lu leer. non dara non man nii laa mel man damay kii rek. foo leen nekk rek yaa ngi rek xàppi. waaw jàmm rek. buur ne ana xuja. moom kër mi ngi ga. borom reer bu neex bi ndeysaan. yow léegi baal ma waaye ci karaw waaye ci am na benn waay bu ne ma seetaan vidéo bi dafa waat. ne da ngay ñàkk combat bi loolu de la wax boo bu ma ko tegee di ko seetaan xam naa ne xaw ma nag loo koy tontu. nañ koy kalaamee ak yàlla. day am suba yàlla amoo ci loolu ah? loo wax ci loolu. non loolu ndam moom yëfu yàlla suñu borom la. mais der gi. yàlla mooy yëfu ndam moom yëfu yàlla suñu la mooy xool ko neex mu jox ko ko. mais der gi ci dënn bi nag. der ba waaw mais sa waay. ana taala ci kanam. toppal ma ko Lamine. cey Lamine. Lamine Seck sama seex bi 4-4 baa ngi nit si bit si bi du mën a yàgg toppal ma lii yàgg maar cey Eumeu Sène reetaan yaa ngi noonu borom jàmm ji bari jàmm lañ ko tuddee ah macha allah ci biir oto bi couronne baa ci oto bi toppal leen ma Eumeu Sène ba daw na. mais moo ci loo ne yow. mais may ñu toog rek. Youssou Ba ci biir la jëm kay jàpp may ñu toog rek moom. non sa waay dañu. Salam moo ñu may. tuuti rek Mourou may ñu tuuti rek. moo ñu may ñu taal ngeen ah. Papis def nii. coppe ci. Ah, maa lay bëggee.

soobee yàlla suñu borom. ci nan lay amee bi yoon. ah ñun ñoo ci ñoo ci lu ñu war a nekk muy entraîner yi sam lax waaw di pare lépp luñ yaakaar ci làmb lu ci des dañ koy bàyyi loxo yàlla. te temps yi temps yi temps yi parcelle dafa taxaw da ngaa ñàkk combat daam seen dafa mbër ak yeneen xale yëpp ñàkk seen combat yi nga jëmaat ci ah, ma dégg sax ñu ne yow fi nekk nii yaay ki war a faj loolu pour mois de juillet. waaw allah ñoom di leen encouragé rek xam nga di leen wax làmb noonu la des fois sam na lu chaque jour lay neex di leen encouragé bu ñu amaatee yeneen combat yàlla may leen ndam incha allah di félicité ñëpp ñu fa tamit. boo pare signature bi. loolu de ci yow a ko déggee sëñ Babacar. <laughs> kon yi fii. waaw incha allahu taala ñoo ngi fi bu soobee yàlla. waa Lamine nee na Eumeu Sène nee na mbër mi nga bë bërikat bi nga bëri loon mais bi yoon mbër mi mooy ñëw mbër mi ak bërikat bi maanaam wante loolu xaw ma moom luy différence bi <laughs> xëy na moom mi ko wax moo ko xam mais comme li may wax rek ci biir lañ jëm indi li ngeen bëgg wax yëpp. et puis na nee nee na nag yow maanaam dañ ne sax yow da nga koo yab da nga yab seen yow maanaam lu mu nga yab ko ci li gars yi wax. <laughs> yëpp waa du ay question yëpp la am la dañ ko yab ci bëri quoi. waaw mais mooy loolu daal yàlla baax na nañ yàlla may tarak andi na couronne bi nag mu ngi ci 4-4 am couronne baa ngi mu ëndaale ci 4-4 lu ñuy wax amul solo puisque. liggéey yi isam ndax ñaan yàlla may ñu tarak fekke loolu ëpp solo bu bis ba lépp lu ñu war a def lu ñu war def ñu def lu ma moom genre confiance boo xamante ni euh, dafa mel ni dafa am beneen de moom ah, day rey rek ah, ah, <laughs> fii mais man lépp ma la mën a ñàkk a tooñ sax ne duy tooñ sax man mu da leer fan yii looy diwoo <laughs> wala deuxième femme bi la ana ñaareel bi <laughs> gars yi teel leen fii nii ana micro yi ana sëriñ mooy ma arrêté nga arrêté nga ca eh Talla Ndiaye day arrière Ababacar Mbaye ngi ndeysaan papaay petit lion buur ba noppi gasem yokk waaw ci moom laa ko mës a gisee mës am ci soiru lamb mook Mohamed Ndaw Tyson bi am na lu ñu am ci lamb loo xam ne dafa na mbir am papis a ngi noonu mooy dawal oto bi confiance daa baax buur géwél. un fidèle serviteur de Modou. confiance dafa baax buur géwél maa la wax lii. Lamine confiance daa baax. Lamine diggante Modou ak Papis daa yàgg. waaw loolu am na. diggante Modou Demba. waaye maa ngi seen Cheikhouna. xam nga lan moo waral confiance bi yàgg. waaw gore rek moo koy waral. waaw gore daa wuur Lamine. est-ce que nit dina dina ñàkk ngoram li ci bu fekkee da koo ñàkk amu kon rek mooy wax yi. waaw Modou kon gore na moo ki nitam. bëgg. Ibulaay bëgg ko. Baabu bëgg ko. Demba Xarañ bëgg ko. xoolal ma mbër mi kee moom léegi bàyyi na bëre. seexu naa seexu naa bàyyi na bëre léegi fecc kat la. waaw man naa tuus lool sëñ bi doonu may tuuti noonu. njël mi may ñu. doonu may nii rek ñun ci Modou de ci seexu naa mi la ñu si. seexu naa ci loo ne. ngay sant yàlla bu baax. Lamine ne da ngaa bàyyi bëre léegi. Ah, Lamine moom tooñkat la noonu la dëkkee man. Ah. <laughs> waaw mais ak leeram bi mën naa daan ëmb see mën na koo daanaat. yàlla fi la ñu jaaral yàlla hmm. incha yomb wala gaaw wala yéex. ni mu demee woon rek ça dépend ci Eumeu rek. yéen daal da di ñëw la seen bés di ko déglu kon. mooy noonu incha allah mu daal mu nee na lépp ñaanal yàlla xam nga fekkee bu bis bi incha allah yàlla may ñu ndaw bu soobee yàlla. Modou ngi noonu ana Ibulaay. waaw Lamine Modou dafa ah, ngay naan. takk seen tiiram. xasum loro Lamine wala moom dimb. waaw moom dimb. wala xasum new. waaw ah? waaye buur ñaareel a baax. xoolal neex a faral dimanche. buur yal naa am ñaareel buur. ree xoolal reetaanu ñaari. góoru ñaari jabar. mais kenn dootu ko fonto. waaye Moodu yaa yey. reel ba mu neex la. a faral ko wax de. nee naa ko daal sa kas ko mas a am. papa Ndiaye Moodu ngi toog. mbër ma <laughs> borom eh, peyaa ngi <laughs> ah, ah neex na dara de tey daan na ñàngal mais tey day ree rek mu ngay naan naanal deux gallons muur xaw ma nag ñaari jabar xaw ma ndax ñaari victoire ci tegle wala déet couronne roi des arènes bi. waaye Eumeu Sène da ko indaale ci oto bi man lan la ko a wan. Eumeu Sène daa métti affaire de. xaaral ko bëgg a wan bu ne ko lambam dafa métti buur mu ngi nii doo jot. ah waaye ki dajeel endurance ci la ko daaneewul. wallaay wax nga dëgg buur. endurance mooy bëre na ko vidde ko ak moom daan ko. épuisé ko door koo daan. lamb joo xam ne yéen ngi nekk fii di a ngi tooyal fii yëpp. papis na bàyyi li muy def. papis na bàyyi li muy def ana papis. nuróol nuróol ak Modou. ah kay ki kay loo bokk ak Moodu. Bamba Bamba Bamba. waaj papi say ubbi porte yi. taxul daa mel ni pare na Lamine. papi say di. jaay jaay bi daa mel ni neex na de <laughs> Moodu waay. la.